kon ñu mus la ci seytaane jàng faatiha ñu ñaan yàlla liggéey bi ñu sumb nii yàlla moo ko mën a àggali yal na ko yàlla àggali ci jàmm ak salaam mu jig dëkk bi jig nguur jig Sénégal jig àddina bi yëpp te ñu ñaan yàlla yi tamit liggéey yu mel nii tasaaru bu baax a baax ci barab yu bari bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi sant subhaanahu ci alayhi salaatu wa salaam. ngi ñaan li nga xamee ne moom lañ fas yéene tàmbali bi isnillahi taala ñu ko ci bismillahi rahmaani rahim. te mottale ko ci alhamdulilah rabbil alamin te lépp nekk suñu borom lu suñu borom gërëm. ñu yëkkati kàddu nag euh, ci turu imam Camara. ñi nga xamee ne mooy imam ratib bu dëkk bi waaye itam aussi nekk euh, suñu kilifa ci lépp ah li ñuy njëkk tàmbalee nag mooy présenter leen ñi nga xam ne ñoo leen fi teeru eh, ki ci jiitu mooy sëriñ Omar Sarr mii nga xam ne yàlla def na tey ci équipe municipale bu bees bi nga xam ne yàlla moo ko fi teg ñu installé leen jeudi passé rek te eh, mooy deuxième adjoint au maire eh, nekk doomu dëkk bi. papaam itam nekkoon kilifa ci dëkk bi nekk imam nekk nit ku baax nitu alxuraan karim dama ko yàlla yërëm. yërëm boo xam ne jullit. suñu waajur woon boo xam ne bii imam Tabara ci boppam du def dara te amul ci ndigal wala am na ci lu war a ñàkk ko ci. donc fi mu nekk ñu gën a ñu yàgg na wala bu dee bu bu ci bind bu nekk ay bàtt déglu. bu koy fàttali ak man yi ñu nekkoon dinañ ñàkk. mooy waaye du dawal si Mama Sall bi.

nekk lu fi nekkoon mbari wala mu fi euh, sën loolu gisee la wax seen kat day ànd ak euh, xale dëkk bi ak jigéen dëkk bi ñu bokk ko saxal nag bu tàmbalee ci gerte yaakaar ne jamono euh, yaakaar mm-hmm. bu ko defee ñooñu ñooy ñëw représenté maire bi ñëw au nom de la commune ci turu maire bi ñaanal fii teew bu loolu passé am na imam fi teew ñu tàmbalee ci imam Fallou Ngom li nga xam ne tey moo fi bras droit si kilifa yi ci dëkk bi e nekk koo xam ne ki itam lépp lu daara ji soxla e ñoom lay kilifa yi yebal ñooy wax ñooy dox e ba lépp luñ fi concerné rek nekk loo xam ne lu sotti lay doon imam Kang Seck mi ngi nii kenn la ci imam yi jàkka yi muy jëlee sax ak quartier bi sorul fii boo jegee goudron bi rek ci moom ngay dal imam Ndour moom itam mu ngi fi desi fi ak ñun euh, Cheikh Alioune Camara mu nga ne toog euh, waaw jëriñ la ci imam Camara doomam la waaye itam moo nekk ci kër ga ku ñëw fekk fa imam sëñ bi fekk fa am moom bu fa sëñ ba nekk tam lépp luy mbiri sëñ bi moo koy coordonné sëñ Seydou Sow notable la kilifa la ci dëkk bi moom itam moo nekk ne la moom itam bokk na ci ñeneen teer euh, le président des parents d'élèves

ñoo fi ñëw waaw ak nag ñi ñu tëru ñii ne moom ñu fi yeewal mbooloo mi nag ëppoon na nii parce que lañ yëgoon mooy mm-hmm. ah, nag commune bu bu baax mm-hmm. ndax itam ba nga fi njëkkee ñëw ñëw sama kër kër ak ànd ak sama jarbaat Cheikh Cheikh moom itam kii leen teeroon la bokk ndax ci dëkk bi la bokk mm-hmm. waaw waaw Cheikh Sall suñu góor la suñu lépp la taxawaay rafet na ci dëkk bi ni mu demee itam ñuy jéggulu commune bi mm-hmm. te loolu euh, maire bi fi teew représenté fi euh, docteur Serigne Lamine Diop lañ koy njëkk a wax xaj na li tax lii demee nii mm-hmm. sëriñ bi moo fi nekkul fan yi yëpp mm-hmm. temps yëpp mi ngi Dakar euh, benn rakam moom moo tawal fan yi mu demoon nekk ci wetam mais bu fekkoon ne nekk na fi kon bi lii amee nga ñëw dañuy ànd ak yow ñu dem ba ci maire bi toog rencontré commune bi waxtaan nañu yëgal leen loolu. Mm-hmm. waaye nag ñoom it na xam nañ ne ci njabootu sëriñ bi lañ bokk. Mm-hmm. donte lii tey ci suba lañ ko yëg. Mm-hmm. te fekk ne la ñu programmé seen liggéey itam. teewul bañ ci amee li nga xamee ni xibaar la. dañoo xool ña mën a toog taxawu la ko des. tànn ñi mën a ñëw fii daal di ñëw. ci turu commune bi ci turu maire daal leen teeru. moo kon di ngeen xam ne li ngeen fii indi ci dëkk bi. yitteel na imam yitteel na sëriñ bi yitteel na sànjara yitteel na itam autorité sànjara muy

tay ay doomu aadama la dañuy outil mhm. lepp luy yootu yalla lañ ko jot ñu ko jotee ñu indi ko fi tay té mu nekk njëriñu communauté bi tan gi ngeen tan sànjara nak indi ko fi mhm. té muy lo xamné ne c'est première fois mhm. mo am ci sànjara colline ci bopam rek man def na 20 ans sànjara mako fi sama dégg rawati nag une colline islamique colline de vacances islamique lolu mu mëna wax ni mi ngi soog am sànjara té nak jóge Dakar ba fi eh, lolu c'est pas un choix gratuit day tam lolu cër bu rëy cër bu àgg sànjara fu nekk la nag rëy na ci ñun lool. en tant que julit rëy na ci ñun it en tant que aussi nit ñi nga xamee ne itam dañu am ay cër ñu leen ko cëral ci réew mi ndax tey képp ku dégg ne tey colonie de vacances am na Sandiara te ay julit a fa nekk ci se ba lañ nekk. loolu loolu sagu bi la. sagu équipe municipale bi la. wala sagu itam sëriñ bi ci nekk ci dëkk bi ak mboolem ko fi kilifa diine tey julit loolu dalaa yëkkati sharaf bu rëy la kon nag ñun àgg nañ fu ñu nekk ñu ngi ñaan yàlla nag lii tey. yàlla na ngeen sawar di ko fi defaat di def ko fa ay at yu bëri te su ngeen ko fiy def yàlla na fekk ne bu ngeen ci def rek mooy gën a dàq beneen bii sant nañ ci yàlla baax ñu ngi ciy dugal ñaan ci turu sëriñ bi sëriñ bi nag moom bu amoon lu ko gënal moom mooy toog fa yëkkati kàddu yi may yëkkati imaam yi fi nekk ñoo koy wutu ci lépp wante tam ñii nga équipe ay doomam lañu kon mun nañ ko taxaw ginnaaw ba mun koo teerul ay ganam mun leen a dalal doy nañ ko ci moo tax itam loolu xelam dal na ci jotaay bii ñu nekk nii mi ngi ciy dugal ñaananam ak yéene mag di bugg nag lépp lu ngeen ci meub yàlla na ko yàlla def guddal nañu ngeen baal ñu àq lu ci rafet ci suñu borom subhanahu taala la lepp lo xam ne loolu la bugg wuñ ko nonu ak yëkkati kàddu ci say biiri kilifa ci côté bu nek nak mo yombul loolu rek la ñu ci ciy bu baaxa baax kon suñu fànn ba pare équipe municipale bi le maire aussi jël parole ñu dalal gan yi noppal leen ñu installé xale yi te turu kilifa ak turu équipe municipale bi asalaamaaleykum kenn desul bu imaam teewee maire teew ki jiite école bi teew ki toogal fi notable yi kon dëkk bi yëpp teew nañ fi te lu ñu fi jëlee it ñëpp daañu koy incha allah ajuma ci ajuma rek bi imaam sëlmale la ko ko publicité ñu bari amoon nañu mais comme ni ko imaam waxee heure bi moo xaw a ji imaam ah, maire nag ngi leen di sant ñoom ndax dañuy dog a jël waaye mel na ni xel dal na ci ndax dañuy setal setal dëkk bi diine ñew fi di fi def colonie loolu mel na xel mu dal kon monsieur le maire noonu yow lañ fi nekkal gan yi seeni gëna dëkk yéen a ko mom lu fi nit def yeen la ko defal kon yeen lay doon liggéeyal daal doon toll fii euh, maa ngi nuyu gan yi nga xamantene ne teew nañu fi maa ngi nuyu sama kilifa yi nga xamantene ñu ngi biir sajara également muy ñoom imam sa Aliou ñoom imam Camara ñoom imam euh, Camara bi yeer muy rakam di nuyu équipe municipal bi nga xamante ne teew na fi di bëgg a jël kaddu ci turu administration école bi nga xamante ne ku ko jiite mooy proviseur teg ci euh, intendant du Faye teg ci surveillante générale muy madame Sarr muy soxna yi kii toog ni teg ci surveillant yéeg teg ci élèves yi teg ci euh, maître professeur yi fi ne ak parents d'élèves yi ak gardien maanaam képp ku nga xamante ne mu ngi ci école bi euh, proviseur nag ak ñoom équipe bi ak ñun parents yi nee nañu euh, bi chimie la te lii ngeen tàmbale nii ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla eggale ci jàmm ak salaam ngeen dellu ci jàmm ak salaam te teg ci également ñun ñëpp ñu ngi leen di baalu ak ci weeru bu tedd bii nga xamante ne jóge na maanaam moom la ñu weesu nii di ñaan yalla yalla na lepp luñ ci ñaan ci lu bax ci kilifa yi diine yi nga xamantene yu ngeen doon ak ñun yi nga xamantene ne ñu ngi top seen gannaaw lepp lu ngeen ñaan ak lepp luñ ci ñaan rek yalla na ci yalla def ndox mu sedd guy te lepp luñ ci ñaan yalla na ko yalla def te mu jig ñu tib suñu njaboot jig ñi ñun ñepp ah bismillah te kon bismillah ci école bi lu nga xamantene ne eh, ñun rafetlu nañ ko ndax école yi bari nañu Sénégal ngeen tan suñu école bi kon donc loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoo am xalaat boobu te xale yi euh, ñu ngi leen di ñaanal également ñu dem ba doon ay imam doon ay imam doon ay responsable yu mag a mag a mag a mag ci réew mi ndaxte maag sama xarit bii nga xamante ne mooy sàll dañoo waxtaan sànq mu ne ma ak imam sama imam bi nga xamante ne moom keroog ñoo ma jëlee fële indi ma keroog ba léegi su ma jógee fii 22 heures le 23 heures pour lépp rek na rafet man échec rek laa bañ kii xam na ma bu baax a baax a baax jàngale naa dëkkam mi at juróomi at jàngale naa ko ci dëkkam kon donc loolu ma doon ku nga xamante ne soo ma nee acc rek pare naa dootuma faale njoboot dootuma faale dara tey lii nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def tey jii man maa ci waroon a njëkk ndax kii toog nii mooy directeur cabinet wu monsieur le maire kii mooy kii Omar Sarr monsieur le maire deuxième adjoint kii mooy directeur cabinet ñoo bokk ndey kon donc waruñu woon nekk fële ca poussière ba may gisuñu ma mais suñ ma gisul rek dara tax fii laa ne man naa ngi nii dama doon béy ñax meeg yu nekk ci toilette yeeg yëpp 22 mm. heures moo may tax a jóge fii yaa 3 jours de cela boobu léegi kon donc loolu doon na lu nga xamante ne euh, mënuñu leen koo fay mm. lépp lu leen lu ñu leen defal rek pour ngeen nekk ci bonheur rek maanaam pour ngeen nekk ci jàmm rek mm. euh, dinañ ko def euh, ñu ngi rafetlu également parce que saa dañu waxtaan mu ne ma dañu gisoon ne colonie de vacances dañu koy gis télé ñii di fecc fii ñii di woy fii ñii di ne nii wala ñu woo ay woykat nii nangam ñu bëgg doon lu nga xamante ne loolu est-ce que xale boobu ëllëg dina nekk ku nga xamante ne dina sentir ci biir ci biir société bi ci dina sentir boppam ci biir société bi ñu bëgg a xool ndax kooku est-ce que ëllëg suñ ko jiitalee ab jàkka di du xalaataat lu mu doon fecc ca école yaayu wala ci hôtel yooyu mu doon def noonu ñu xool ne lii la nooy mujj àdduna kon donc yàlla ñu ci yàlla jàppale ñu ñaan dal daal yàlla na leen yàlla nekk fi ak ak teral leen euh, nawet bu rafet fekk leen fii bu nga xamante jig nañu ñun ñëpp bisimila moon bisimila moon jërë ngeen jëf ngi kilifa euh, ngi leen di dalal fii di di dëkku xam-xam parce que borom xam-xam yu ñu ngi fi nag dëkku jàngukaay la aussi ndax njàng moom école arabe am na fi yàlla may nañ loolu euh, bu loolu weesoo ñoo ngi jéggalu ci retard bu tuuti bi parce que dañuy doog a jël euh, commune bi ci fan yi ba ñu jëlee nag ak léegi dañu yoroon ay mébét yu rëy parce que bu ñu la dénkee lenn boo génnee ay mébét ba boo leen nee bu ma la boo ngeen ma joxee lii ma def lii war nga bu ñu la joxee nga wane la nga waxoon mm-hmm. loolu charte yooyu moo ñu tënkoon ba ba ñu commencé ak léegi bi ñu jullee keroog julli gi lañ def sanjara leer naññi moy sanjara di lumière lamp ci dëkk bi yëpp taal nañ leen changé ampoule la kon dëkk bi lèr nañ ñepp gis nañ ko ñu dag garab yi pour mu gëna lèr tay nak ñu jàppoon bis bo xamanteni moy mbalit mi nekkon ci dëkk bi yalla xamna ni boy doon dem tay armeel yi mbareem mbalit mi nekkon ci digg mbedd bi man bu may dem suma Armelu papa damay rus tay ñetti ben lañu andi ak pel chargeur ak ñetti ñetti tracteur

Euh, defe naa ni ku fi ñëw dañ la teeru dañ la dalal kon gan yi fi nekk ñu ngi ñaan yàlla li ñu séentu ci Sandiara ñu fekk ko fi te jàpp naa ni ñi fi nekk daañ ci taxaw parce que lu ci war wóor na ma ni Imam saar wala fàllu ngoom bu ko yëgee bu yegsee ci man wala mu yegg si keneen daañ ko saafara problème bu ngeen fi am ci commune bi bu soobee yàlla daañ ci taxaw amul lenn lu ngeen fi war a am te mënuñu koo faj bu fi fiti dara lu ngeen soxla waxtu bu mu doone wo len imam sar wala fallu Ngom mu woma bu ngeen yoro sama téléphone wala ki kilifa bi fi dina ko jox sama téléphone bu boba lañ soxla ñu defal ko ñu ngi len di ñaan aussi ngeen ñaanal ñu ci dekk bi parce que ñu ngi koy dogo a jël mebet yi ñu bëggoon yépp yalla dimbali ñu yegg ci parce que bu ñu ñëwé di laaj mairie bi pour defar sànjara rek la du pour défar suñu bos ñoo ci sonn parce que ku am sa bis au nga toog sa kër topp mbalit mi poussière bi defe naa ni pour defar a tax kon ñu ngi leen di ñaanaat encore bu ngeen taxawee ngeen bañ ñoo fàtte ci Sandiara Sandiara mébét yu ñu ci xalaat yàlla nañ ko romb ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu leen di gërëm bu baax di leen sant bi mu mébét nii wax ko nii du dañu xaar bañ fan la ñu tàmbali ko mm-hmm. lycée bi ñu toog ni témoin la ci mm-hmm. ci li ma dégg nag parce que jegewuma kayiti lycée bi mm-hmm. danañ deux classes dong la ci état bi tabax li ci des seet ñoom ñi ñoo ko tabax lycée bi tout. 700 millions def nañ ko ci sama loxo équipe bi mm. docteur Sène Diop moom muy wax noonu mooy lii rek sax euh, panneau euh, euh, kii affichage yi nga gis ni ci ay inauguration yëpp di nga gis ne su donc turum turum nga ci gis ak ay partenaires te li ngeen romb léegi aussi bu sottee ñun ñun tam dinañ ci sotti ndax ñun tam seen projet mooy doxal suñu dund kon daal lool lañ ci amoon lu ñu complété te xam ne itam nit sax dana toog ne dama bëgg a falu mais du ma def tànk faluñu ma. mais na ku commencé liggéey ay ati ati ati at at kon boo ne bu ngeen ma falee ma liggéey. kooku ñoo a ci des. ndax nit tam la mu yéene yàlla ko mën a sottal. bu ko defee daal dañ ciy insister waat ci turu sëñ ñaan yi bëri ci seen côté. waaw bu ko defee daal yàlla yàlla leen yàlla dooleel. lañ mébét ci seen xol yëpp te bëgg ko tax ko réew mi. yàlla na ko yàlla def nu mu gën a yombe ci ñoom. incha allah loolu la li ci amul lu ñu yokk. boo xam ne dañ dox ba ñuy falu ndax ba ci réew mi lañ nekk i mag lañ mm-hmm. am na ñu bëri dañuy taxaw na bu ngeen falee bu ngeen falee toog ci seen teraanga toog ci seen i mën mm-hmm. tant falu ñu leen def bu ñu leen falul sax day far neel mm-hmm. mais nag liggéey ay ati at boo ne boo ma falee ma liggéey kooku di nga gëm kii tàmbali liggéey te doo yorul ko jox ko benn cër soo ko joxee cër dina taxaw ci liggéey bi loolu lañ bëggoon a complété